sunu gan euh, tay, euh, di euh, maître Massamba Alassane Ndiaye salaamaaleykum. maaleykum salam, Babeka. di nuyu Georges Dethié Diop greffier nga ci tribunal grande instance bu Dakar, fi ci palais de justice bi nekk ci corniche bi bokk ci UNTJ du Union nationale des travailleurs de la justice ab mbootaay bu ëmbi greffier la nga yor wàllu communication ba fofu joko gi. Euh, tribunal Sénégal yi nag fan yi dafa yëngu bu weesoo grève sud juste bi ñu sumb ay semaine a ngi nii magistrat itam dégg nañ fa coow la dinañ ci dellusi ci kanam hmm. waaye li waa sud juste di cas si semaine ba keroog sax euh, ministre mu joo dajeek ñoom xool nu ñuy safara yi fii est-ce que loolee waa sud juste di cas jëm ci seen payoor yéen gis ngañ ci seen boppam déet euh, jërëjëf Babacar nga permettre ma d'abord ma nuyu suñu mbokk auditeurs yi wax ne comme ni ko je m'appelle maître Massamba Alassane donc euh, nga permettre également ma incliner devant la mémoire d'un d'un collègue muy suñu benn euh, collègue greffier à savoir maître euh, Mamadou Diallo bi nga xam dafa gañu juste bañu ñu génnee tabaski bi. Hmm. diko jalé travailleur de la justice yëpp diko jalé njabotam di wax ne également je l'ai connu à Linger avant que muy rejoindre son poste au niveau de de de Louga. effectivement comme ni nga waxé waxee mom justice bi c'est vrai que à chaque fois ñu ngi dégg ay problèmes yu fay jugee euh, tout récemment avec euh, grève bi am euh, mooy ñom aya le sud juste comme on dit donc nous revendiquer affaire yoo xam effectivement euh, c'est des revendications yoo xam ne suñu ay revendications parce que bu ngeen bu ngeen fàttalikoo ñun si juste lañ nekkoon donc benn syndicat le travailleur de la justice amoon di leeral également que je fais partie de la de la de la cellule de communication mais également que INTJ du ay greffier cassé. C'est des, des, travailleurs de la justice, c'est des greffiers, c'est des archivistes, c'est des informaticiens, c'est des, des, des, interprètes, donc c'est des secrétaires, c'est une famille. Li nga xamné mom le sud juste de effectivement suñu suñu suñu suñu suñu intérêt mi ngi si te am na si si yenn fànn yoo xam ne d' accord nañ ak sud juste par rapport à ça suñu seul point de de divergence c'était que jàpp nañ ne dañoo jugee si mbas ñu nekk benn secteur boo xam secteur bu névralgique la par rapport ak ak ak dëkk bi donc yaakaaroon nañ ne xëy na du grève kese moo mën a régler problème yi donte c' des problèmes yoo xam il faut que ñi régler lii tax kay ñu leen di jiiñ ne euh da ngeen di ak sud juste ci euh, wàllu pété ndax euh, mel euh, ci niñ leen di tuumaale da ngeen di jappal tank gouvernement beeg ministère de la justice. waaw loolu ñu ngi koy dégg te jàpp naa li li waral loolu mooy ba ñu créer suñu syndicat te loolu da nga may permettre ma rappeler que ne UNTJ ba muy judd mi ngi judd le 15 février 2020 le 2 mars 2020 ñu dugg ci mbas mi donc toutes les mesures dañ ko dañ ko dañ ko wàññi woon au niveau au niveau du Sénégal pour pour pour les raisons que yu ma wax léegi donc mu permettre ñu aussi ñun ñu amoon suñu feuille de route parce que tamit boo nekkee ndaw en tout cas nga judd si si si un secteur aussi important que la justice loolooy wax ji da ngeen ni ba xër ñu te rek judd euh, ci jamono yi su juste di yëngal non c'est que xam nga dañ ne nettali xuloo xuloo la bëgguma revenir aat si day fee yoo xam ne yéen ñii nga xam ne ay ay ay ay journalistes yéen relais ngeen ko li nga xam ne moo indi suñu judd processus la dañu dañu dañu dem congrès pour sud juste ba mu dem congrès mu dem congrès nam no no no congrès ba tëddee neexuñu parce que amutoon démocratie xamuñ kii mooy Massamba xamuñ kii mooy Mademba ñu ñëw bëgg a mettre def ay xeex à l'interne mu commencé créer ay problèmes ñu ne def leen daan kaay mu jiite la par par force amul fenn ñun on est assez responsable nañ jël suñu responsabilité ñu créer suñu syndicat donc loolu moo indi création syndicat bi maintenant le fait d'aller voir ñu dem gisi ministre de la justice bu fekkee loolu mooy dañuy jàppal tànk loolu am na ay communiqué yoo xam ne ba nga xam ne ministre de la justice jóg na def loo xam ne ñun d'accorduñ si jóg nañ kat ñu taxaw wane suñu féete ne ñun ñu ñu ngi si côté wu travailleur de la justice ak ay communiqué yoo xam ne partagé nañ ko largement par par par par voie de presse. <coughs> coow li mooy yéen nañ ne nga sànq quinze février ngeen juddu 15 février at gi ñu nekk nii ba léegi euh, yàggut euh, jamono ji nga xamante ne c'est euh, juste ñu ngi grève. ministre bi dalalu leen ñu len ñu naan sax ministre bi xeyna de da de da di sofantal au même moment le ministre di leen euh, ñëw dajeeg yeen mhm. xam lool mo gëna gën euh, xelu nit ñi ñuy jàpp ne accointance fa am. Euh, man nañ ko comprendre man nañ ko comprendre mais ñun li ñu jiital mooy xam nañ ne nous sommes des des responsables te li ñu yóbboon si ministre de la justice xamoon nañ ko parce que ni ñu rencontré ministre de la justice également noonu lañ rencontré l'ordre des avocats il faut pas que gars yi fàtte ko le bâtonnat rencontré nañ ko en en l'occurrence maître Papaleti Ndiaye ba nga xam ne bañ fa demee aussi wax nañ fa waxu grève bi ba tax mu jël bâton de pèlerin nekk di di liggéey si mbir yi donc ñun tey bu amoon benn jàppale bu ñu jàppale je le dis et je le répète bu ñu amoon benn jàppale bu ñu jàppale waa sudus la ñuy jàppale et puis rappeler que ne li nga xam ne SYTJUST moo koy xeex mais marche bi ngeen gis barki dem ñun ñoo njëkk a marche procès Khalifa Sall c'est moi qui le prenais bu ngeen bu ngeen bu jour délibéré greffier adok moko man man man mi di wax ak donc li nga xam ne da koy xeex ñun dañ ko àndoon di mais ministre bi li est-ce que bu ko njëkkee woon dinañ fii mooy gi daje gi ndax greffier ñi nga xam ni greffier du seen métier yéen bu ngeen bañee liggéey ñooñu la ñuy jëli muy ay gendarme mbaa ñeneen euh, loola euh, nu ngeen ko gisee yéen li ministre bi def barki démb daje gaa yi bu ko jiite woon euh, est ce que dana toll fi bon jàppoon nañ ne depuis le début loolu moo nekkoon matuwaay bi ñu waroon jël parce que kilifa bu fekkee si sa njaboot dafa am jiixi jaaxa rafet na nga woo leen kat déglu leen lan la d' autant plus que à la décharge du ma wax leen ne SYTJUST dafa ñëw mu poser mu def préavis de grève Bam fait defee préavis de grève presque chaque deux jours ñu génne une déclaration préavis de grève a ak ak mouvement def un mois donc je pense que naa ni autorité bi suffisamment de temps pour woo leen déglu leen wax leen par rapport et puis grève bi ñu fàttali que ne du ay revendications c'est des revendications yu fi nekkoon la ça fait depuis 2018 ba donc pour man y avait pas grand chose gars yi dañu waroon rek ñëw toog waxtaan nañu kat lii par rapport ak lii de mën nañ ko def léegi lii kat par rapport au contexte expliqué mais ku nekk braqué wu ku nekk toog di xool pour man c'est c'est c'est c'était invivable heureusement comme nu ma ko waxee sànq am na des bonnes volontés ñu ñu leen di saluer au passage maître Doudou Ndoye et et le bâtonnat et toutes les bonnes volontés en tout cas qui se sont rapprochées des, des, des deux camps pour, décanter la situation et pour le, pour le grand plaisir des, des justiciables revendication yooyu du lu bees ay accord la woon nguur gi d'accord ceeg yéen ba ngeen waa SYTJUST arrêté woon seen i grève jamono jooju surtout lu jëm ci wàllu décret d'application yi pourquoi ba léegi nit mënu cee teg gët. Ah, loolu moom yéen seen xel ñawul ci loolu. doy da waar te ni ngeen ni ngeen ko waxee ñu nit noonu lañ ko noonu lañ ko remarqué parfois on on a on a du mal dañuy am dañuy am problème sax pour wax ci parce que xam nga nit tamit booy wax da ngay wax loo xam ne da nga koo da nga koo xamal da nga koo gis. Mhm. décret yooyu man su ma nee la teg naa ci bët dama lay nax donc du lu ñu gis mais am na lu ñu ci dégg mais nag entre li ngay dégg am entre li bon quand je dis lu ñu dégg mooy par rapport au décret li si nekk mhm. euh, ñu ñu fàttali que euh, secteur de la justice man dama jàpp ne gis nga Sénégal euh, secteur yëpp am am am importance mais am na si ay secteurs yoo xam ne li ñuy joué ak li ñuy représenté dafa dafa dafa dafa doy waar tellement que dafa am benn benn benn benn benn benn kii bu ñu leen war a def benn traitement bu ñu leen war a def je parle pas de traitement de faveur mais un traitement spécial dans un secteur aussi névralgique et aussi crucial que la justice tay jàpp ne un le le le fait de demander un mieux manam euh, doxalin bu bees manam euh, plan de carrière pour les travailleurs de la justice manam payor bo boo xam day répondre par rapport à liguey important bi pour man c'est c'est tout à fait normal maintenant gouvernement ba muy ba jël également ces ces ces décrets là da ko jël en toute connaissance de cause donc lu Mohamed parce que gouvernement aussi c'est pas les yeux fermés les ñëw di signer donc signer parce que gis na parce que am na ay conseils, parce que am na am ay travaux préalables yoo xam ne moo maintenant bu amee point d' achèvement loolu moom ñun on peut que constater mais décret bi loo ci dégg euh, gisu leen ko mbay ne da nga ne am am li ngeen dégg bon si je comprends ci contenu bi euh, ci contenu bi nee naa la ay revendications la yoo xam ne ñun ñoo ko porté woon ba ñu nekk sérieux am na si benn parti boo xam d'accord na ci mais il paraît là je donne ma langue au chat comme on dit que ne am na loo xam ne laalaat ko parce que ñun amoon na ci ay ay ay ay ay petit kii yoo xam d'accord ci woon mais on s'était dit que c'était pas grave parce que dinañu permettre au moins travailler de la justice ñu am benn benn benn benn plan de carrière te plan de carrière Bob également je pense que mënuñu ko bañal parce que nit mënoon na rek da ngay da ngay da ngay da ngay jàng def concours ñëw nekk nekk greffier et booy booy booy booy retraité greffier donc loolu moom amoon na ci solo maintenant pour le reste comme li nga wax rek ne parce que gisuma ko parce que nañ également ñi nga de sorte que vous wax loo xam ne et puis vous me permettez si si c'est possible de revenir sur sur sur sur les greffiers ad hoc gis greffier man sama sama sama Sénégal du moom moo créé métier greffier du Sénégal moom mooy révolutionner métier greffier prenez votre votre temps allez sur sur sur sur sur le net tapez greffier ado pratiquement Sénégal rek nga koy gis dafa mel ben exception sénégalaise la man euh, bañuñu ñu indi fa ay ay ay ay ay garde pénitentiaire mais ñu ñu liggéey liggéey bi nga xam ne mooy mooy seen je vais faire ma def leen benn confidence dama toog lundi sama bureau benn waay ñëw ku xam ne man foofu laa ko fekk si tribunal bi laa ko fekk agent la mu ne ma maître affaire bi da doy na waar ma ne ko ah bon mu ne ma man de dama demoon ci bureau suñu benn collègue bëgguma tudd turam mi ngi grève ma dem ci bureau fekk fa benn garde pénitentiaire mais nee na damaa dugg rek mu yóoxu ma solo sa max nee na ma sol sama masque di wax mu ne ma li nga waxal ci kaw yóoxu ma waxal ci kaw li nga wax dégguma ko nee ko ma ne li nga taxoon ma ma wàcc masque parce que maa ngi masque dama ko doon wàcc pour li may wax nga dégg ko que da nga koy sori bi bëgg kii ma génn benn gendarme boobu ne ma kaay ma ne ko noonu bàyyi ma dem ma ne ko mon cher kii dame bi li mu def nii loolu lañ ko loolu si loolu lañ ko formé garde pénitentiaire la ku ku dem ci prison d'après tout ak li ñu wax yëpp xam ne ñoom am na noo xam ne nañuy doxalee donc problème bi du moom problème bi mooy ñu ko fi te ñooñu aussi je dis que ñoom it da leen def benn tort parce que même ñoom ñu fa nekk dañoo nekk mal à l'aise parce que service commandé lañ nekk bu ñu leen wooyee ñëw leen ne leen def def dem leen fii dañ fay dem mais mënuñu mënuma concevoir tey ma def concours très sélectif sur dix mille candidats ñu jël ci 50 nga def une formation de 2 ans ñaari atu formation nga pare nga def 6 mois de stage trois mois Dakar parce que Dakar si une procédure trois mois dans les régions Bon par ñu nous ñu une année xam une de stage ñu doog la euh, titulariser greffier nga jël ay nit euh, formé leen ci moyen de 10 jours ou dix jours et même ça, 6 mois Nous avons taxaw et là je parle euh, au nom de en fait au nom de tous les travailleurs de la justice de tous les greffiers mais je parle également du directeur Mamadou Diakhaté du CFJ mu taxaw ne ils sont aptes

Euh, ki war a jël audience bi benn greffier ad ne ko na ko won koo xam ne yow nee nga ne apte na lu ñu koy won waa ji ne la ñaar de deux choses l'une soit je prends mon audience soit moom il est apte moom mu jël ko gars yi wax mu dem bàyyi fa affaire yi donc pour vous dire également danger bi si nekk tey un greffier ad mu jël benn benn benn benn affaire bu fekkee dañ la si daan dix ans yow dis-toi que dix ans ngay tëdd c'est comme si affaire dafa am autorité de la chose jugée parce que greffier yi même bu affaire bi jeexee bu ñu ñëwee duñu laal dossier boo xam ne ad hoc moo ko laal donc loolu aussi il faut que gars xamné xam arnaque bu mag lañuy def justiciable parce que justiciable la nax greffier ad hoc et puis dafa am si ay termes yoo xam ne si si si ay matières yoo xam ne accepté nañ ko plus ou moins hein en matière pénale mais gis nañ sax Tamba greffier ad hoc buy buy compte signer un casier. mais lii yëpp est-ce que lii yëpp warul woon tax yéen ngeen bokk xeex bi. waaw waaye yéen ngeen toog rek ñee voilà di ci yëngu. bon bokk xeex bi xam nga tey bu fekkoon euh, bokk xeex bi rek la jàpp naa ne kon suñu génn site juste du am du am solo dañoo génn si juste tamit ñu nekk si yoon xam nga tey koo xam ne da nga nekk secteur de la justice da nga war a le bon exemple yéen ñëpp déglu ngeen fi temps yi ay menaces yu doon pesé si bopp euh, secrétaire général du justice par rapport à une procédure intentée contre lui mais ñun nous sommes un syndicat je vous ai dit les conditions difficiles ak contexte bi si bi si am bi ñu ñu judd amaguñ le le récépissé ñu bëgg a dem grève mais mën na doy waar ce qu'on peut faire par contre mooy comme actuellement ni ça je le dis au niveau du de la cellule de base du tribunal de grande instance de Dakar gars yi dañoo boycotté les audiences toutes les audiences ont été boycottées parce que dañuy xaar greffier ad hoc yooyu ñu ñu jëlee leen ci tribunaux yi. waaw euh, leneen la xam ne bëgg nañ ko junju gannaaw waxtu bi léegi mu jeex mooy euh, mbirum magistrat yeeg euh, coow lu fa am fan yee tuumalante ger ba ministre de la justice bànqaasam bi war a àtte magistrat yi sax dugg na ci di enquête yéen nu ngeen ko gisee. Euh, lu ñu ko gisee mooy euh, lu doy waar la parce que jàpp naa ne comme nu mu ko waxee rek boo nekkee ci secteuru justice da nga war a wane le bon exemple di wax ne magistrats yi suñu ay collaborateurs lañ ñu xam ci teg également ay ay ay nitu valeur ay nit yu am ngëm-ngëm du ñàkk nag ah du ñàkk parfois. Euh, mu am ay réeroo comme ni ko gars yi di tuddee mooy conflit de génération parce que euh, ku ku ku ku nekk xam na ne magistrat yi seen seen seen seen seen retraite day xaw a day xaw a day xaw a gudd tuuti am na ñoo ay ay xale lañ ñëw nañ c'est normal parfois qu'il y ait ces problèmes maintenant li nga xam ne moom la ñu a mën a déplorer mooy le fait que mu ñu porter ko dans la place publique parce que comme on dit le linge sale se lave en famille mënoon nañ toog am nañ ay bancas am nañ ay instances yoo xam ne mën régler ces problèmes là mu bañ a dans la dans dans la place parce que problème bi muy indi mooy manque de sérénité ak désacraliser l'institution judiciaire justice comme encore une fois je dis dafa am solo de sorte que am na noo ni noonu la lañ ko war a également muy góor di jigéen di fa tamit donc rek lañ mën par rapport affaire guerre man jàpp guerre euh, question nit la nit ki éducation ci gëm-gëmam tamit day day day day day tontuwaat doon wax pour guerre également nit ki da koy à la hauteur de son travail parce que am na si yenn secteur yi boo fa nekkee war nañ au moins ñu protéger la. mais magistrat yi ñoom waxatuñ dara ñoom bu dee wàllu koom <laughs> euh, est ce que yow si sa métier sa métier greffier mës ngaa toog ci até di jël euh, ñu ñu ñu dogal ab até mu tey sa xel. Euh, loolu moom maa maa ngi maa ngi touché di bois di wax ne mus musuma ko musuma ko seetlu musuma ko seetlu looloo tax ma ne la sànq. Euh, si ñuñ si ñuñ si jot a xam xëy na tamit suñu suñu suñu temps si justice yàggul parce que c'est cinq ans six ans lañ def si si si justice mais en tout cas xam nañ si ay nit yoo xam ne ay nitu nitu valeur la ñoo xam ne le matin bu duggee seen bureau loo leen di fekk ñooy def mooy ubbi seen kaamil di jàng wala affaire donc xam ne ñii daa une présomption de bonne foi sur maintenant justice nag euh, muy magistrat muy greffier muy beneen travailleur que ce soit sénégalais yi wala nit ñi ñoo am lu leen di xoolee te loolu tamit day bokk si lii yëpp dafay bokk si rafetal nous ànd bi ñu secteur de la justice ñu xam les magistrats ay greffiers donc du affaire c'est exclusivement réservé au secteur de la justice parce que guerre nous justice noonu la ak ah. mais da nga dañ ko c'est l'avant-famille mais justice nous na ñoo justice askan wi ñun ca est-ce que buñ ko toujours ci biir est-ce que tax corruption bi ñuy wax dakk mhm. au moins mu toj baax na ci nit ñi xam li li mo xew comme ça ku ne jël ci ay leçons. waaw bon man mom wax waxuma waxuma corruption euh, je je parle pas de corruption li may wax moy manam jiñante euh, jiñante en tout cas voilà ñàkk déggoo bi am ci seen biir. mané ne ñàkk déggoo japp na ni ne nañ ko régler ci biir xam nga lutax parce que tay ki nga xam so soo ci si ngay dem mu atté la soo ko déggee muy xeex xuloo mën na tey sa xel ne serait-ce que pour préserver sànq li ma wax mooy euh, sacralité bi am si si si justice jàppoon naa ne baaxoon na kat ñi nga xam ñu jéem am na ay instances yu nga xam ne mi ngi foofu ah, par rapport ak kii am na IGAJ boo xam ne moom mooy saytu tout ce qui est travailleur de la justice donc am na également mooy euh, kuréel bi ëmb magistrat yi donc pour man ils ont assez d'éléments en tout cas assez d'instances pour pouvoir régler ces problèmes là en interne et non pas les kii si place publique jërëjëf euh, euh, ci ci waxtaan wi sunu gan kon tey mbokk yi nekkoon euh, maître Massamba Alassane Ndiaye greffier ci tribunal bu Ndakaaru yor communication ci UNTJ Union nationale des travailleurs de la justice yendoog jàmm jaajëf Georges de Diop jàngeen jëf itam mbokk yi di gërëm sunu